nii kon day junj ko junj si jóot dana taxaw toog waaw maa lott na heure bi njëkk na mu bàyyi loolu aaj bi aji lott illaa anil qiyaam boo xam ne mënul lu dul taxaw day taxaw jullee wa maa al jullee su fekkee ne dafa boole mën a taxaw daf cee boole mën a su mën a jullee si tam maanaam mën a toog lii junj yooyu aw ma ah mu junj li sujjóot yi sujjóot mu junj ko min ko jógee ca tukkee ca jataay ba sujjóot mi dégg nga de mu ni waxal yàlla bu ndax yéen ci bu dana war fii ci dindi alwusu kem kattan day sëgg dindi suuf rukkoo ba fa mën a yem rek wala mu dindi sujjóot ba fa mën a yem te kon buñ gisul dana doy in sajada dem sujjóot na ala an fihi mu sujjóote ba kanam rek bàyyi jéem ndax mënu ko wala moom kay di sëgg ba fa nga mën a yem waru ci ni nga sëgg ba dindi boo xam ne rek xam nañ ne dindi nga rukkoo wala dindi nga fii sujjóot ba mu leer rek daal leen am na suñu ay jëm waaye yàlla moo tax ñu ñu dañuy dindi buy dindi bi yedde yi bu buy dindi bi yedde yi ak ñaari loxoom yi comme moom kay ñaari loxoom yi di ko dindi yedda ahuma daf leen di tëral ñi nga xam ne bis jot noonu lay war a def alal la di ci kaw suuf te waxoo te loolu kat wax jooju al muxtaar mooy la di tànn wala déedéet mu nga ca kanam taal yi laal mu ñu la ci ñaari wax yi mu ñu kalam ñu leen bind ka xar ka xar na imaamat yi naka wokk ñeeteelam gi di su jóotin ci su jóot maanaam dafa yëkkati amaama bi wala jëm maanaam meeteel bi nga xam ne moom la meeteeloo dafa bëgg dafay junj ñu ngi kon maanaam dafa meeteelu meeteel bi wàcc bi ci jëm nga xam ne suñ junjee mën na wadd wala su si jootee dafay dem ci kaw bu bu bu junjee rek kii bi day wàcc ba fii mu di ko dindi nii bi su julli nga xam ne bu ko bàyyee kat julleem yàqu nga xam ne wala moom kay bu fekkente ne imaam gi nga xam ne moo mooy mooy wàcc bu su jullee ba fii daf ko war a na dindi nii daf ko war a yëkkati maanaam wokk daf ko war a wokk te kon ñu nirale ko bi nga xam ne matal mu ñu doon wax rek ñu si kaw waaw wax na si waa léegi fii de fii taal waa yow ñëw bi mën na su jóot mu wokk ko ndax kon wokk gi bi mu koy wokk wala bàyyi bi mu koy bàyyi bu fekkente ne daf koo wokk day mel ne dafa junj ndax bu fekkente ne junj ne moom mel ne jëfam lay junjee da nga xam ne bu ko ci bàyyee ak bu ko yëkkatee yëpp du laal suuf du ko teg ci kaw suuf waxoon nañ ne bu fekkee ne dafa sujjóot ci kaw suuf bu fekkente ne léegi waaw dafa mën a sujjóot meeteel bi wàcc fii nga xam ne buy teg jëm ci kaw meeteel bi meeteel bi mooy dox digganteem ak ak suuf si ndax kon itam mu ngi mel ne masalam yi ci ñaar wax ndax dana doy wala daf koo war a wokk kay wala mu kay daf koo war a wokk lu sujjóot mu ne kaayu daal la ndax buñ ne rek moom gannaaw day day day junj rek mën na cee bàyyi meeteel wala moom kay bu junjee woon ci meeteel bi day mel ne meeteel gii rek mooy junj kon am na lu dox digganteem ak suuf junj gi matul ndax kon dafa war a wokk meeteel bi junj wala wëru ko mu ne am nañ ci ñaari jamtal ñu ci matal mi jiitu woon mooy waaw loolu la ñoom ñaar loxo yi ñu war a teg ci suuf wala li nga xam ne daf koy war a junj rek. nii wa in qadara su fekkee ne mën na alay kulli ci lépp waaye wa in sajara bi su jóotee kat laay xam du mën a jóg mën na rukoo mën na sujjóot mën na toog mën na taxaw waaye waxtu ñu dijoo di taay wu dijoo dootu mën a jóg. dégg nga kon atam ma waxtu wu toogee bu sujjóot diggante ñaari sujjóot yi du mën a jóg mu sujjóot ñaar ndax toog na ko bu sujjóotaatee ñaareelu sujjóot bi nag pour war a jóg léegi du mën a jóg kon atam mos li rakka atam rakka su ma jëlee toog mu jox mu toog nag di junj soxla te wañ xaf fa ah atam rakka atam su ma jëlee waaw toog mu toog wañ xaf bu fekkee ne ma fees na feebar bi maanaam ma du nekk ku ñu nangu gàntam gànt yi nga xam ne moo ko teewoon man li ñu ko sant gànt yi léegi ci biir julli bi woyof na suñ tàqale mu taxaw ñu la laa jëm ci la gën a jafe maanaam la féete kaw naka nag su fekkee ne dafa tawatoon ba bu mu taxaw te wéeruwul mu taxaw wéeru diggante bi mu yëg ne moom kat mën na taxaw te bañ a wéer dafa war juuban daal di dindi wéeruwaay bi wala dafa toogoon bañ a wéeru gannaaw bi mu yëg ne moom kat am na taw mën na taxaw te wéeru dafa war a daal di jóg taxaw wéeru mooy wala sax ne woyof na maa ngi dund na mu ngàntam in tax ci maanaam dafa feebar wala waaw ba nga xam ne nangu woon nañu ngàntam ba mu mën a taxaw wéeru bañ a toog in tax la bu fekkee ñu ne loolu mu taxu ñu la laa jëm ci la gën a kawe mooy fekkee ne dafa taxawoon te wéeru mu daal di taxaw bañ a wéeru wala dafa toogoon bañ a wéeru mu def taxaw wéeru wala bu foofee dafa toogoon wéeru mu toog bañ a wéeru in tax la ñu la laa donc kii intiqal bi ñu kii bi la wujju fan la wala lay doon wala waaw wala nag ban leen waaw bu fekkente ne day naaj bi naaj bi rek lay doon bu fekkee ne day julli farata mu jub lay ndax naaj bi léegi dara na am ñu dugg ci ànd ak yéene yi toog te dara jotu ko waaye boo genn wàllu yoon la yor genn wàll comme ci oxut bi nga xam ne saxaaba yaa ngi julli doxoo sallallahu alayhi wa sallam waaw mën ngeen ko waaye genn wàllu yoolu ko taxaw ngeen dem su boobu la ñuy julli naa fi loolu farat la ñuy julli farata nga naaj bi ci ci nga xam ne dafa lor.
waaw moom dafa xaw a toog. toog ñu ngi def ndeyjoor def ci càmmoñ soog a jaxaar.
waaw ndax dëfin boobu ñu tere woon am di ma tey ruq ko ci ci ci Dëfin.
ci dëfin bi.
déedéet dëfin bi moom.
dëgg bi ñu jiital sax ci defee bi mooy jullee ay bëtam jullee ay bëtam taxaw ñu ko taxawaat si jot toog yaa xam
loolu it.
ànd ak pas-pas lool defee moom salaat bi dama dafa ne riir yu yàlla bañ riir yu yàlla bañ moom defee ndax boo ko seetee doomu aadama yi ko féete ko mu rawaxaan yi ba ñenn ñi soxla ndax néew ñu bañ a tax mu xóot a xóot ko trop ne yërmande suuf mu ngi yem ci kaw ñu féete kaw xóot lu trop nga dañu wax ne fii ji mu ngi ci suuf ba sax mais dafa mel ni sàq nii dem nag ba weesu juróom-ñaari asamaan dugg ci suuf itam ba sax ruu yi nga xam ne yu texewul lañu dañu mel ne làmp yu fay nekk ci biir suuf si xam nga duñ ko gis comme ni ñu ko gis jinne yi malaayka yi rek ñoo duñ ko gis ruu yi tax yi féete kaw na làmp yi gën a leer ba defee xam nga jërëb bi bu làmp fukki jinne làmp bu ñu ba dana leer leeraay gën a doy saa yi tax tax yi gën a mat kon nag xóotal benn bu mu topp ko suñ ko gis ci bàq dana waat na rek nag waajib la loo xam ne dana tee mu xeeñ wala mu génn li nga wala dara mu ko du dara kee mu mu mu feeñ dañ ne alqabru xabsun maa daaw fii sax dama dama muy sax kii biir alqabru day bismillah mu ne way naa dina dem wax na an faatee ci wëlis faatee bi nga xam ne farata la woon xaa imin bi mu daal di taxaw xam nga taxawaay bi farata la lu ma ko woon jàlla sa bu toog jàll faatee waaye nag wax ji nag maanaam mooy taxawaay boobu te nag moom pardon li zaati wala moom léegi pardon mu ànd fa am nañ yaa ngi fàtte waaw mu ànd fàtte rek waaw xam nga fàtte woo ko ci démb xam nga ci def bi pass moom bu ko jiitu ma tax muy waxee ne ki mënul fàtte te am ngànt moom bu fekkee ne mu kàbbar sopp mu fasale ko koo bi waaw bañ a allah ba rek mën mu fàtte allah ba tàndil ko sopp nañu taxaw nga xam ni kon bu fekkoon ne taxawaay bi bi zaat yi dafa war kon kooku duñ wax sopp nañu dañ naan war na ci moom mu taxaw taxawaay boo xam ne mën nañ fa jàng fa yàggaa bi mën jàng fa kon dafa lëkkaloo waaw jàng waaw waaw dafa tëdd ko wa in lam yaqdir fekkee ne at ni illa ala niyatin waa ji daal yéene dong mu la mën waaye mënul wax sax allahu akbar xaw ma imaan wala ànd ak junni bi moo ne mooy mu yëkkati ñaar loxo yi wala bi sax ci ab gisam bëtam wa qaala wax na wax waaw maa ngi nii waxay loo ak keneen ne laa nax sax gis ñu ci benn yàq bu ñu yàq bu ñu war a def léegi nag xanaa usul yu ne ñoom su fekkee usul yu ne ñoom ay jot daañu am ñu gis waa ji daal yéene dong moom daal tëdd ak jaaxaan ak tëdd ak def dara daal lu yéene mi ak juj waaw mën na jaaxaan di junj xanaa wala mu junj daal mën na ko am sax junj nag bi tax mooy li ma doon waxee kii jullee ba parce que bu fekkente nag loolu dong la mën ndax kooku dafa am ñu ne war na koo def ñu ne bu mënul lu dul loolu yéene ak junj xam nga léegi mënatoo kabar kabaru armal mënatoo taxaw mënatoo diju mënuloo rukoo mënuloo sujjóot mënuloo taaya yéene daal nga am ak junj xëy ba am na ku mel ne maasër yi waxee lu mu xam ne sax ñun maasër yi dafa bàyyi am na Bachir ñooñu ne ñu daal amuñu ci benn texte daal ñu ñu waxal daal ñu naan النبي ذلك تولي في القلب فهل يصلي ام لا؟ في هل يصلي ام فيها الى اخر ما تقدم عنه. kooku daal day rob ndax mel day rob fii ñi nga xam ne neen daal suñu benn yàq mais waaye ñoom mën nañ ci bañ a gis benn yàq am ñeneen ñu si gis yàq ndax kii moom maanaam ah kii xadis yi dafa bëri te saxaab amul benn saxaaba bu dajale xadis yëpp ndax ñu mën xulafaaw yi kuñ ci indil àtte boo xam ne mosuloo fekke ku ko yonent bi soo sama àtte da ngay laaj saxaaba yi ku ci mos fekkee ku yonent bi àtte naan su amul kenn ku àtte ñii saa dañ si naa war mu dajale muhaajiroon yi ak ansaar yi léeg-léeg mu def ijtihaadam xalaatu boppam léeg-léeg dana laaj ki ko wax du ko doy mel ne Fatimatu bint Qays radiyallahu anha bi nga xamee ne Sidna Umar benn jigéen a ñëw di ko wax ne ko moom dafa séyoon ñu fase ko léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam atteelu ko dund atteelu ko dëkkuwaay fekk Sidna Umar dafa laaj saaba yi kan mooy mu ne Sidna Umar seet seet daal loolu daal duyu mu ne daal waxi jigéen bi yoo xam ne xamoo li mu wax am na wala amul daal du tax mu bàyyi daal ni ma ko xalaatee woon rek séeréet na Aïcha xam na bu Fatou buñ ko ay ko boobu ñu ragalal yàlla maanaam xam nga kooku d'accord ak moom comme si moom si naa mën a d'accord ne loolu comme koo ci xam ne dina laaj ñu masala kenn xamu ko ci hadiis mu wéyal xalaatu boppam gannaaw gi mu gis koo xam ne dégg na ci hadiis mu dëppoo la mu xalaatoon mu sant yàlla dëppoo wala moom mu teg ko dama ko defee woon mu wéyul mu wéyee mu tuub Seydina am naa rek mu yàgg wala Abdoulaye ibn Mas'ud am na koo xam ne dafa ñëw fëgg buntu Seydina Omar nga ñëw sax duñ fëgg dañu naan asalaamaaleykum xam nga ñun tubaab yéen a indil fëgg ba moom la ñuy def ñetti yoon tontu ko mu dem ginnaaw man génne yónnee ko ne ko waaw lu tax yow nga nuyoo jote bu maaj bi nga daal di dem dama di gën yonent bi sama ñetti yoon boo ko defee istisaan wala kenn ko ne ko nag xadis boobu keneen ko dégg ak yow na yaakaar naa ne am na ñeneen ñu ko dégg rek su daaw boole ko ndaw dem ba kër mbooloo ci saaba yi ñu toog ko waxee ñu ne ki gën a tuuti ci ñun ñooy mooy dem comme sa idam xudri yi kon dem sidna mën naa ko nekk si woon wala yonent bi def dara duñ xam lu tax ñu werante ci ñii ne lee tax ñii ne lee tax ñu ki tey ñi yenu néew romb la nga jóg taxaw sallallahu alayhi wa sallam def na ko ñii ne ngir rëyu rëyaayu dee man ku fi jógee jub ci suñu borom situation boobu ni mu deewaat moo tax ñu jóg ñu ne déedéet malaayika yi nga xam ne ñoo xaj ci roo ñoo yóbbu roo bi ñoo tax mu jóg ba Sidna Hasan ibn Abi Talib ibn Ali ibn Abi Talib ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas nañu yenu benn yewoon bu jigéen bu dee buñ ko rombee mu jóg taxaw ngir bañ néew yewoon bi féete kaw bopp ah ko moom noonu la baax na waaw kii ne moom mënul lu dul yéene ak wax jëf kii ne moom mënul lu dul yéene ak gis ak gis ci bët waa ci bët waaw loolu moom xam nga dama yaakaar ne moom fi mu toll nii bu ko mënul dëgg ba mu nekk ci benn xaal wala mu ngi wëdd ci ay xaalaat moom parce que mën na dëgg nii mën na dëgg lu ci nekk day métti nii dana feebar ba du mën a yëngal benn cër
waaw foofu bu ko àggee est-ce que nu mu tëdd noonu du du du dañu wax na léegi de loola moom
ki nga xam ne ki nga xam ne dañ koy dugal mu soppi ko maanaam sopp nañu mu toxtale diggante tëdd ndeyjoor bu ko mënul soog a tëdd càmmoñ bu ko mënul jaaxaan kooku mën na wëlbatiku maanaam diir bi fi sax ba julli mooy lii fii waaye ba tey teewul mën na mën na wëlbati moom jublu ndeyjoor wala mu seet ba xam ne mënul tëdd ndeyjoor mu tëdd càmmoñ mu seet ba xam ne mënu ko mu mën na mu jaaxaan kooku mën na ko waaye bi nga xam ne mënul dara dara dara lenn lu dul bëtam yi rek mooy yëngu ak mën na yéene kooku la ñuy wax ndax julli gi wàcc na ko wala wàcc ko Maazari ak mu Bachir ñoom ñoo ne amul benn yaxal benn xadis buñ ci gis ne kooku dara war na ko mën naa am keneen li ma doon misaal léegi mën naa am ñeneen ñi xadis xadis bu bee sax loolu.
man kay li ma doon bëgg a laaj mooy. gannaaw moom ñu doon dañ ne lool rek la ma. xam nga li ñu mën junj ci bët yi.
waaw wala yéen doom dana ko am ci dana ko fekk ci benn position.
bi mu nekk bi mu nekk rek.
waaw position boobu ndax mën ngeen leen a julli ci position boobu.
nam ciy jullee.
maanaam ci kaw tëdd nu mu tëdd fekkee léegi dafa fekk mu jaaxaan te noonu rek la ma.
te bu jaaxaanee du man lëngal bu jaaxaanee mu xam ne jaaxaan rek la man wala tëdd wet la man wala nu mu mën a mel waaye du mën a def benn acte ci julli benn benn gis ko man lu muy bëtam yi rek la man ba mënul yëngal dara lu muy bëtam yi rek kooku la ñu wax ak nu mu ko fekk mu tëddee itam rek waaw ñu ngi ko def mu tëdd.
waaw mais ni mu ko tëddee itam mënul yëngal dara waaw.
kooku la ñuy wax ne ndax ndax ki nga xam ne dafa tëdd wet dana def ay gëstu dina julli dana julli ci ay cëram waaw.
waaye ki nga xam ne mu ngi benn cër lu dul bët rek ak fu mu ko fekk xaala bu mu ko fekkee dafa jaaxal dafa tëdd lu mu mën a def daal rek ñu ne kooku nag moom julli bi wàcc na ko ndax gisuñu fi ñu ko tegee lenn suñu julli ñu nag ñoo xam ne nag ñooy ñooy bët yi ñu ne dama ko ñooñu nag xaw ma dañoo am benn nas sukkandiku ca wala seen ijtihaad moo leen ko jox maanaam ku xamul xibla ah xam naa li nga wax ni nga ni ñuy waxee lott ci
jëfi julli bi bay julli kii dafa lott ci jublu jàpp
nga xam ne moom mënu ko wàcc na ko kooku xam xam nga kooku duñ ci dugal ñu diñee dindam xolam xelam dañ ko ci ñàkk du diñee ndax mënul dund la ko ni mënoon na ko rek moom war na ko waaye gannaaw mënu ko wàcc na ko ki nga xam ne nag réer moo ko tax a mooy penk kooku la ñu wax ne bu fekkente ne li mu mooy penk lu tuuti la bu ko xamee ci biir julli bi day war a def tuuti rek ak dugub di gàmmu nit ñi ki nga xam ne nag moom dafa wan kenn ku carrément amul day baamu ba xaw mokkan
li nga xam ne léegi dañoo xam ne li nga xam ne léegi day day gumba boo xam ne li mu jot li mu fëcc li mu jeng néew lu waaye nag nekk na ko léegi jël na léegi léegi day màgg màgg ci boppam wala mooy ma xaw moom lu mu néew néew dañ ne xam day baax baax dafa ci jublu dama ko bu nekkee ci màkk moom li ñu sant muy jubal ci kaaba bi faj ba mu wóonee ci kaaba bi lañ jubal bu fekkee nekkul màkk nag ñu naxale rek waaye yàlla tegunu nun jublu màkk ci kaaba gi ndax mënuñu ko mu ngi mel nekk ijtihaad rek waxtu woo xamee ne dafa am ay xaala yoo xam ne dëgg bi kenn du ko mën a xam dañuy làmb bi rek nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci asra badri bu ñu diisoog sidna Abubakar sidna Umar yëfar yi ñu xare ba jàpp leen ñu xam ne fay lislaam leen taxoon jóg ak rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi yàlla dimbali nañu ci moom ci ñoom ba ñii daw nañ ñii dee nañ ñii jàpp nañ leen ñii ñu jàpp ñu leen war a def sidna xam nga foofu ñoom ñëpp amul kenn ko xam li war amul benn aaya bu wàcc ni ñii ngeen leen di def booba aaya jooju حتى إذا أحسنتم شد الوثاقة فإما من بعض وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها لكن يوجد البط والسبيل nan la ñu war a def léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn nax bu ko wax ne nan la ñu war a def mu diisoo ak ñaari wasiiram yi muy Abu Bakar ak Umar Abu Bakar ne ko ñooñu ak li ñu mën a def ay mbokk nañu mën nañu mën nañoo joxe rançon maanaam ñu joto nañ leen laaj alal yoo xam ne lislaam dina ko dimbali ko ñu bàyyi leen ñu def dinaa mën ne ko yéefar daal du mbokk mbokk moom dootuñu dootu doonatuñ ko ndax moom sàmm ñu sàmm woon te ñoom mbokk bi nekk suñu diggante nañ leen rey nañ leen rey ah sallallahu alayhi wa sallam ci bari yërmande mu topp xalaat si naam bu kat aay bi ñëw dal ci seen kaw ñoom ñaar ànd ak sidna Omar dégg nga ne leen ñu ko waxee fi waaw suuf yoon xaal nga def حتى ما كان النبي ان يكن لغه حتى يكون في تريدون عرض الدنيا ولا يفتح ولا استجل ولا كتاب الله تبارك وتعالى ما اختم ادم ادم كل ما اختم القران النبي gis nga alxuraan bi ma ko jàngi woon baral bu nga jéemee yi diibal rek saar boo xam ne faral ma koy diibal dafay jaxase wax ko daal bi par ngaan bu dee maa ngi koy njëkk a def rek dama koy jaxase boobu nag bi bi dëgg ci ñoom maanaam li suñu borom bëgg ñu def ko xamaguñ ko dañuy làmp ñu may leen ñu jëfee seen xalaat mooy ijtihaad ñu defee ijtihaad dañuy al mujtahid imam muxtiin wa imam musii fa in axtaa fa lahu ajrun waaxidun wa in asaaba fa lahu ajraani yeneen nag moom suñu borom du ko bàyyi ci réer même bu defee ijtihaad yi suñu bu fekkee ne juum nag yo kii suñu borom dina ko jubal su ko nangam loolu la wuuteeg bu yeneen moom day wéy bu dee erreur day wéy ci erreur ba mu muy dee wala ñu dem ba xam ne lii woon njuumte la loolu la ñuy wutee léegi nag bu fekkente ne nit ki dañ koo teg li mu man rek li mu man lépp war na koo def loolu mooy laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa su fekkente ne léegi tey leer na ne mën nga taxaw julli te doo wéeru ak coono bu métti waaye mën nga ko yow sa bopp am nga loo dagg ci sa bopp maanaam coono boo bañ a kii nga wéeru ne mënuma léegi yàlla xam na ndax la nga def lépp la nga mën lépp def nga ko wala déet mooy li ñu wax naan yàlla ku mu layol yey la ndax laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa waaye wusu bi loo ci wàññi sant ñu leen ko ëpp waaye loo ci wàññi rek yàlla xam na ko te bu ko layol yey yow yéer maanaam boo nee sedd bu métti ne damaa amee sedd loolu mënuma jàpp yàlla moom xam na te boo demee mënoon nga jàpp nga am coono waaye wala dana métti tuuti waaye mën nga ko te du la indil feebar wala muy tax sa feebar yéex a wér wala muy yokk li nga mën rek la la sant kay loo ci wàññi yaa tooñ muy
ñaareelu ba muxtaral mazhab bi mu ñëw muxtaral mazhab bi ci matal ba mu ñuy wax li nga xam ne moom mooy si sàq yi ngir nii ngir imam Maalik mi ne ak ngir mooy ndet li nga xam ne moom mënul bëtam ak yéene nga ko def
ci bon ci dégg maam ci la moom rek li mazhab bi jàpp mooy nit ku naan yéen mu ngi noyyi rek julliwaat na julli war na waaw seen xelam ngi nekk si ñun julliwaat na ko jàng alxuraan war na ko julliwaat ñaan yooyu du juróom julli ak jàng alxuraan benn bu ci nekk foofu wàcce nit ki lu gàtt lay doon julli foofu ñu wax ak yi ñu waxoon ci ngànt yi rotal julli jàng alxuraan mu toll koo xam ne amul laab ni ki tey dafa amee ca ngaay wala muy koo xam ne mokkalul alxuraan te amul kaamil wala mu nekk xadaratu ko ca ca pays suñu borom waaye xam nga am ne alxad dañu ne alxadaratu xadaratu bëftin dafa nekk doo ànd ak sa xel doo xam ne si baax jàng alxuraan dana la wàcc waaye booy génn mu di la wàcc kon julli ak jàng alxuraan moom daanaka mën nañu du wàcc nit ki rek mu ni wa jaaka dagan na xexu ay nim ko cet bët ak daa boo xam ne joox na bi juloo si ci jekk jekk nga xam ne waa ji dootu mën a bu ko defee kat dootu mën a dafa gàjj bëtam benn muy nàcc wala mu mett noo xam ne mu sëgg wala mënu taxaw nga xam ne noonu mu kocce bët bi tax na mënu la taxaw ba day toog waaye lo daruur yi la tax dafa feebar ba war koo faj mun ko bañ a faj mu def ko dana muy dagan na mooy wa jaasa dagan na fi xoxayni tëdd ak daa tëdd boo xam ne joox na maanaam yóbbu na nit ki ñu julli suñ ci mu nekk waaye laal si def kaay bu fekkee nag bu fekkee ne day bu ko defee jaaxaan doo nga lay mën de dara da ngeen de mu ni fa ñu ay du nga ne ko waaw bu dëjjër leen ba def ko nag ba nga xam ne jaaxaan rek ñu koy fa ñu ay kon day baamu abadan ba xaw bu jaamu ci waxtu def faw lay baamu mu ne wasu xawara yi fat na mën a day xusu ko ngantam ay dantam ba tey am na nag ñu ne ah loolu ngant la kat du du du baamu bu taw wa ba tey dagan na li maridun ñeel aji feebar satru na jisin mu suturaal aji sobewu bi tahirin ci lu laab li ñu sàllee ngir na julli ali ci kaw loola le lal bi wala fi mu toog dafa sobewu moom feebar na mu génn dem di julli ci fu laab mu fab darab wala malaan moo xam ne laab na mu lal ko ci kawam julli ci nekk foofu lëg alal al jaxit mu nekk saxiix yi naka noonu la dagane ñeel ak ñiir itam nga xam ne feebaru alal al jaxit te wax ji gën a nga xam ne kon alal al jaxit dafa dafa ñu ñëw xam ne kon xëy la defee ngi comme kenn bu ñëw la abu ñu baaga la comme ñu dem bismillah wa daga na ba tey li mu tanat min ñeel aji naafile wu dina suñ jekki nga xam ne moom dara jotu ko day jum rek tàyyeel naafile bi mu daal di wala fi asnaariha donte dafa demoon ba ci biir digg naa bind bi waaye la muy doxul dafa tàbbalewul woon alal nit naa mi dafa jël ak matal ni mu yéenewul woon matal mën na julli ñaar rakka taxaw ne sonn na ñaar rakka yi ci def wala ñeent rakka yi wala juróom-ñett ñi mu julli ko nga trop su fekkente ne ba muy tàmbali ci naaj bi yéenewul woon a taxaw lépp waaye la tijaaul daganul na muy naa fi ne dara gis ko mu tëdd de am na loolu awal doon nga seen yàlla nga la ko yéene woon.
misaal bi nag mooy muy war a julli ñaar ak donc.
waaw tànn taxaw léeg-léeg.
du ko mën kooku moom du ko mën.
maanaam déedéet. ah fii la ñu. waaw jeex na. jeex na.
maanaam comme lay ngeen tudd wala jàng alquran ci xol dana duwaan ci xol waaw.
nga xol sànni ñu di di xool rek dana wax ndax loolu bañ a wax.
waaw nga ko jàng xol.
waaw wér
waaw dama doon laaj.
bisimilah kon boo tuddee mën nga ko teg ci kii ba. waaw parce que may préparé ci soir.
ngir am xalaat. wax nañ ne man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut.
loolu yëpp.
faqad ashraka.
kon.
man xaalafa bi gayri llahi faqad ashraka.
kan faqat axe ma xam dina la faqat axe waaw.
ñaari weer laa doon laaj. ak ak yàlla yàlla moom day baale bokkaale mu baale bokkaale ray nit te tey ko.
maa koy di.
ray nit te tey ko. tam tam tam ne dina la yàlla ko jàpp ni ko moom seen yàlla. loolu laa doon laaj.
bu njëkk bi nga ne man kaana xaalifan fal yaxlif billahi aw li yasmut kuy diñ nga diñ ci yàlla wala nga noppi maanaam nga bañ a gi diñ Seydina Omar daal na diñ ci bàyyam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere ko ko ñu ne tere nañu ku diñ ci lu dul turi suñu borom yi ak meloom yi ak baatam yi nit mën na giñ ci alquran nit mën na giñ ci isma illahi nit mën na giñ ci sifa billahi li nga xam nag mooy ngiñ li sere otral mooy billahi alladi la ilaha illa huwa boo nga giñ nag ci lu dul yàlla mooy nga fab leneen teg ko place yàlla mooy ishraak mooy bokkaale fekk nga loo xam ne yàlla doo nga ko moom nga boole ci leneen liggéey boobu mooy bokkaale giñ waat moom wala fiyee ko ak nit ñi ñu ñoo ko fas waat sax moom xam naa xëy na xam ne baatu anglais am baat am na ci anglais baat boo xam ne noonu lay fekk mooy giñ giñ nag alxalif mooy billahi ladi la ilaha illa huwa ulama yi woote nañ ci te rabbil kaabati giñ naa ci rabbil bayti ndax bokkul ci sifaat yi bokkul ci asmaullahi yi am na ñoo xam ne wayafal nañ ko fa daganal nañ nga ne ka rabbil kaabati wala wa rabbil kaabati wala nga ne wa rabbi muhammad wala wa rabbi jibril waaye ñëpp ak ñi ci ngiñ nag bu fekkee ne nit ki giñ na ñaari tëgg ngiñ moo am li ñuy wax li ñu teeñu taw sax ñu ngi ci muxtasar bi da ngeen ci àgg soxla ñu ciy dem noonu waaye boo giñee giñu teeñu mooy billahi lasi la ilaha illa huwa danaa dem tey Dakar boo demul Dakar na nga Dakar mooy xiif te baraa nag mooy billahi la ilaha illa huwa keeg gis war na diwe mën a la gis diw mu ne billahi la ilaha illa huwa du moom kooku moom kafaara waru si bu ñu demee fekk du moom da ngay tuub rek jéggal bu fekkee ne dama giñoon ne danaa dem Dakar te demuma Dakar damaa kaakaar bu fekkente ne nag léegi li ma giñee la ma koo jox woon dafa am sart wax ne moo taxoon ne giñ ko te sart ba saxul mel na tey da nga fekk saaku ceeb ñu dajji ko léegi li njëkk a tibb mu bari ay ay xeer ak i salte yu bari nga ne billahi li lay dara kii bi nga ci lekk saaku bi nga ci lekk ñu dindi loolu nga defee loolu ci kaw rek la yemoon li ci def di ceeb bu baax boo ci lekkee doo kaakaar mu mel ne nga fekk xale si tuuti di mooñ nga ne teg bi ñu ne reer bi ma ci reer léegi ñu dàq ko benn mag ñëw li koy mooñ amee boo ci reeree toog xabaar ci mooñ ah ngiñ li nga tegoon ku giñ ci lu dul yàlla bokkaale mu jeex na mooy ki nga xam ne daf fekk li nga xam ne yàlla rek lañ ko jagleel moo ko jagoo nga jox ko keneen nga boole ci keneen am na it yoo xam ne du miñ du leen kàppaar waru ca du leen mooy nga ne barke Sëriñ Tuuba wala barke Cheikh Tidiane wala barke Sëriñ Sall boo ko waxee loolu du